jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii na Kër Massar seet si fi xale boo xamante ne gëj nañ koo gis ci làmb muy sang tey wasaare làmb moom lañ seet si ngir waxtaan ak moom fu mu nekk nan lay préparer ba xam promoteur yi ñu ngi koy woo ab mbét lépp dinañ ci waxtaan léegi du yàgg tuuti sang mu ngi nii moom lañ dalal ci wasaare làmb sang maa lay nii. Ah, waaw maa ngi lay fay. di fay waa Kër Massar waa Kër Massar Malika di nuyu tamit sama waa koñ di nuyu gars ma toogoon nii léegi yëpp waaw di nuyu waa tamit waa site bi waa Wassare Lamb di leen bëggee di bëggee tamit Giri champion bi Mbës Upa Cheikh Bass xam nga ak yi ma toog fi yëpp ak booy yi xam nga di bëggee ñëpp di nuyu tamit sa sa caméraman waaw Badji. Badji sang lu indi turu sang sang moom mooy lan sang bi daa mel ni daa amoon loo ci toftal nga changé ko sang nan. waaw sang bi sang suuloon sama benn mag mu doon bëre ma nekkee fii Kër Massar mu nekkee Pikine di bëri moom tuddee boppam paxu néew moom mu tuddee ma ne ma jëla sangu sul tamit boobu boobu Pikine lañ ñëwoon jumaa yi sangu sul boobu ma xool jumaa ji ak almeer bi tëlee dox seen diggante waaw léegi nag ñu tuddee ma woon jaaxa jooju quoi jaaxay sangu suul léegi ma jël sangu suul bi waaw noon la demee loolu ko waral. nga jël ko bëri ci ñaata combat ren. waaw boo xoolee bëri naa si onze combat neuf victoire laa si am deux défaites. waaw. victoire deux défaites. waaw neuf victoire deux défaites. ci làmb ba am loolu lépp. ah boo xoolee maa dugg si làmb fin 2012 bi fin 2012 mais yàlla su raama tamit fin 2012 bi samay combat tegloo parce que sëñ Modou Niang moom ma doon tegal trois combats yëpp ma am si trois combats yooyu si si année boobu waaw. yàlla su raama tamit trois combats yëpp nekk trois victoire tamit waaw. noonu la daan kan ak kan neuf victoire yi. waaw ma xool neuf victoire yi sama premier combat maag Birku Plein la sama deuxième combat maag Abdou Dakar troisième bi maag Zan la. waaw ba neuf yi mot boo xoolee tamit ñu ma mujjee bëre boo xoolee daanaka Ousmane Gandigal su ma juum waaw moom laa safurlaa laa mujjee bëreel laa mujjee bëreel si bi sa sama dernier combat nag Mac Jackson la laa ñaaxee waaw sama dernier combat laa ñaaxee Mac Jackson. kon Jackson lu mujjee bëreel bi avant muy bëre Pam Doy la mujjee bëreel. waaw man la mujjee bëreel avant muy bëre parce que daa jógee si man rek daal si Pam waaw noonu la demee si Pam Doy la mujjee daal. kon ci nga mujjee jógee. waaw si defet laa jógee nii instant laa toog. waaw noonu la demee. mais ki la daan champion la ci làmb. non lu leer Jackson champion la war na mën a daan mbër yëpp war na mën a daan waaye tamit ñun xëy na tamit nag tey ji xëy na dañoo def li tax li tax làmb boole ñu mais xëy na tamit li tax ma ñaax maa def erreur mais tamit lamb bu ànd ak erreur tamit doo daanoo waaw noonu la demee na ba tax na ma ñaax mais tamit maa koy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla tamit mu gën si moom te jékkoo waaw. onze euh, onze yi nga am yëpp ban écurie nga ko doon préparé. waaw xool parce que huit yi huit yi xool neuf yi la préparé face école de lutte Père Mbaye Gueye Père Mbaye ñaari waaw Fass Mbao waaw parce que ñaari nag la préparé fii Kër Massar écrit Aldo la préparé ñaari waaw laa ànd waa Kër Massar. kon instant maa ngi écrit Kër Massar mbooloo. waaw nekk fa ak samay entraîneur ñoom ay Père Baba Père Diagne ak Mat ko si maa ngi ànd ak ñoom waaw nekk fa ak ay ñoom Paat Demba tamit gaa yëpp si biir. waaw noonu la demee nag. yéen moom li mbër yi di jooy Père Aldo wutal na leen ko muy fu ngeen di entraîné. waaw wax dëgg nag am nañ fi ñuy entraîné noonu la demee nag ñun jooyuñu dara ñun jooyuñu dara am nañu écurie am nañ fi ñuy entraîné te écurie bi yaakaar naa tamit normal wax dëgg yàlla ñun motal nañ nag ñu sant yàlla nag si côté boobu baax a baax waaw ñu koy wat sant nag. sa combat yaak euh, Jackson mën nga ma ci indi tuuti noo def ba Jackson daan la. waaw loolu moo xool nu mu na ne excès de confiance jàpp tamit confiance bu ëpp laa bërawaale na fu dëgg yàlla bi ma ñëwee tamit li ma lépp li ma waroon si combat bi def naa ko bi ma sumee ko tamit ñëpp xam ni sang liggéey na xëy na li ma entraîné xëy na tamit ak naagu bu ëpp moo a jàpp mais du leneen xëy na tamit bi ñu jàppantee tamit yàlla xam na ni erreur laa nag mais erreur tamit ndaw tamit bu bu liggéey ba am doole day wóolu boppam waaw noonu la demee nag. waaw bu ñu bëree fu dëgg yàlla bu ñu bëree jàppante nañu bu ñu jàppantee ma daw plaqué bi ma plaqué nag li ma daw moo ëpp bi mu faaxatee may sam sama tànk pour am abi tànk bi moo glissé xam nga stade bi si suuf si suuf si du bëri suuf si du bëri bi may teg sama tànk na la tànk bi glissé na mu ah, mu eggale action bi waaw si la rëppee. loolu saison daaw la 2019. waaw 2019 bi la moo xool la la le la 2019 waaw. presque kon bokk ngeen ci ñu tëj saison bi. waaw ñu la demee bokk nañ si ñu ko tëj. waaw at bu bees bi nga dugg see ci at bi ba léegi promoteur yi ñu ngi lay contacter. waaw laxat ñu ngi déggante Matar tamit ñu ngi déggante laxat tamit ñu ngi doon déggante ba am combat bi ma doon wax mais xëy na tamit après boobu nag jotuñu see sori mais tamit Matar tamit waaw ñoom ñu ngi déggante mais instant yi daal si ñoom la des daal waaw instant maa ngi samay entraînement toog sama ruux di xaar ak samay entraîneur ak sama staff bu baax a baax. non yàqawul si man yàqawul si man man combat bi si man. li tax li tax combat bi ba tey déggootoo ci for naa ci wewu bay ni làmb jooju ci yow la yàqoo. non non no non non demewul noonu xëy na laat xëy na ñoo am lu ñuy wax dem ba si biir tamit xëy na mooy loolu mais tamit làmb la. non xëy na bis dina ñëw dina taxaw man ngay waxal wax ma rek lan mooy problème bi ba combat bi. ba jëlee non la bàyyee combat amul benn problème. bilaa walaay taalaay combat amul benn problème mais tamit xam nga tamit ñun ay ay mbër lañu dañoo ne suñu yoon mais da ngay jàpp ne lamb bu ñu booleeg moom tamit dañuy jël. wala adversaire la demee par exemple lamb dañu la bëgg a boole adversaire yi nga xam ne du la arrangé. adversaire bi kan la waaw fu daa bu ñu dee tamit wax na ma bul laal mi mën a wax bul laal ak mbër waaye tamit instant mii nii ma gis nii yaakaar naa man war naa war naa war xam ne bul laal la néew ñu bul laal quoi waaw noonu daay dañ leen di moytu de. non tarki daay waaw nañ ñëw bismillah gars yi. dañ leen di parce que avance bu laal fi mu toll nii kër guñ fëgg rek sañ bas ñu delloo avance ba. lan la wala bu bu laal li mu doon doomu Siteu moo tax. non demeewul noonu. ñun demeewul noonu ñun xalaatuñu loolu sax bàyyi ñu xel sax si loolu bu laal damaa jàpp ne instant làmb booleeguñu pour man instant li ma def si làmb moom defagu ko si làmb. bu la am. bu laal non jàpp ma ne ñaata combat la am de. champion la ci lu leer mbër la. ay xale ngeen da ngeen war a bëre saison bu nekk ñetti combat wala ñeent. waaw doo dëggal dafa leer waaw mais bu laal man instant man maama laax gën a soxla wala Youssou bu per baal la pour man instant ñooñu ñooñu ñooñu làmb ñoom bu laal mais Youssou Ndour bu per Balla wala Mama Lamine ñooñu ñooñu bëri ay naataango lañu. boo toogee fii. say say mbokk wër la. waaw nga gis say xarit ngay dëkk Mama Lamine ah Mama Lamine gis nga barki démb la mu def jokkel la Mama Lamine du moromu benn xale. waa li ma waxoon rek laay waxaat. xëy na jokkel koo xamante ni rek làmb dina leen boole Mama moom du la li ma waxoon laay waxaat xëy na jokkel moo yaa xam ne ba tax na mu ñaaxee noonu combat mais lu jokkel entraîné pour man xajul si Mama Lamine te balaa ñoo mën a gëm ne lu jokkale entraîné euh, xaju si Maama Lamine na combat boobu taxaw Maama Lamine na tourné ne sang laay jël wala sama combat ak sang. comme comme Jokal moo la raw ci làmb mu jël jokkeel daan ko bàyyi ko mu dem rek nga xool beneen plan boo xamante ni jege na ko boo ko daanee xëy na boo laajee Maama Lamine waaye ñu jox la avance euh, nu mu tuddati booy ba. doomu Siteu bi bul laal. nga nga nga ngeen yàq combat boobu laa ko mën a waxee ci yéen ñaar ñëpp ndax ku ci nekk nangul jël sa morom tey nga bëgg a dëkkaat di di tàllal loxo maama Lamine loolu doxalu. waaw bu laal bañu ma mais buñ làmb boole ma moom ñu fay ma lu ko jar damay bëree mais maama Lamine laa gën a gën a bëgg a bëreel que bu laa wala yus na bu weer baal laa mais tamit dama la wax mais tamit tamit bu euh, maama Lamine def li nga xam ne dafa ma ko dëggal nag jokeel ba fu dëgg yàlla champion la mais nañ essayé wan leen wan leen la jokeel daa juumoon rek erreur la erreur la làmb li ma ci jaaxal mbër yi mënumaa xam ban côté lañ leen war a catégoriser parce que mbër moo ciy laaj ki muy laaj du nangu bëreek moom xam nga tey su ma ñëwee ci sang mu ne maama Lamine laa bëgg a bëreel mooy buggoo bëre wala maama Lamine moom xam nga ni du la jël nañu waxtaan rek ci logique làmb li tax lii logique làmb mooy tey doon nga xale boo xamante ni da ngaa bëreeg Jackson mu daan la Jackson bu taxawoon rek Jackson mu baal ma bu taxawoon ne maama Lamine la soxla maama du ko jël. waxumala ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci làmp boo waxee sa adversaire potentiel boo xamante ni kii man ak moom làmb ju neex la amateur yi bu ñu duggee dinañ gis ambiance dinañ gis bëre bu neex promoteurs yi dañuy mën a daw ñëw ci sang fekk si la fii ci Kër Massar tëgg sa combat nga ànd ak mbooloo dem làmb ja mais yow kan nga gis yow sama adversaire potentiel bi nga xam ne maama war nañu mën a laale moo la gën a xam màtt a sa xol mais danga may wax ñi nga xamante làmb boole leen te logique na pour man maama Lamine moom ma la wax làmb daf ñoo boole doo bàyyi maama Lamine non dafa la dama la maama Lamine non sibale wu ko de mais maama Lamine Youssou Ndour bu per balla ñoo ñoo gën a taxaw bu laal te ñoo yaakaar naa ne sama mais yaakaar naa ne tey buñ ñu boolewoon moo ne la booy yëpp tànguñu ñu yoonu làmb rek la ñu am rek mais tamit lambu ñu boole nañ jël bu laal tamit nag sans dépendre rek si ñoom la def mais maanaam tëgguwuma ko balaa muy jàpp ni dama koy langal langalu ma ko de man maa ngi maa ngi na bu laal mi ngi si ñeneen waaw noonu la demee. bu laal moom xam naa ne mbër yi seet si naa ñetti mbër wala ñeent yoo xamante ni avance bu laal moo leen teree nelaw buur siin wax na ma ko buur siin bu dóor dóoraat nee na ma moom bu laal moo ko gënal lu mu am ci àdduna yow tamit noonu dafa mel ni mbër yi daal fi mu toll nii xale yu ndaw yi ñoo téye làmb waaye dese na ñoo xam seen adversaire yi ñu war a mën a dajal ci làmb. mais parce que boo xoolee làmb léegi comme ni nga ko waxee làmb instant ñun ñun booy yëpp ay catégorie lañu ñun booy yëpp ba si ñu ma lay wax nii ni nduur Ndour ak ñeneen ay ñoom Mama Lamine ak Boulla pour man instant yi nii ñun ñëpp ay catégorie lañu. Mama Lamine bokkul foofu yéeg na fi mu toll nii. ah yéeg na. yéeg kenn waxatu ko ci loolu. Ah, waaw lépp mën naa ne kon léegi bu laal Youssou Ndour catégorie ñu ñëpp ay catégorie pour man balaa moo mën a neex sax ñu def ko tournoi ñun suñu biir catégorie ñu xool làmb xool booy seen biir bu boobaa la ñuy xam gaynde yi nañ ko def nag ñu xool ñu ñëpp ñu boole ñu bul laal Youssou nduur ak ñeneen a ñeneen parce que tamit làmb leen la rek teggante fi moo moo fi bëri quoi ñun bëri ñun booy suñu biir parce que kenn ku ne nga xool fu mu gën a nooyee. mais nañu boole. man li ma gis ci làmb ji fi mu toll nii xam nga lan la. d'accord bu laal bokk na ci sa catégorie. Youssou Ndour bu Père Balla Gaye d'accord mën na cee bokk. waaye am na beneen xale boo xamante ni barki démb mu ngi def ay preuve yu leer ci làmb muy booy bawal bu dóor dóoraat gis nga xale boobu jéego yi muy def ci làmb simple bi am na ci yeneen xale yoo xamante ni tamit ñu ngi ci ñu ngi ci làmb ku ci mel ni buy booy siin mi nga xamante ni ki doon bëreel nu mu tudd euh, booy siin moo doon bëreeg barki démb arène nationale journée sëñ Modou Niang bi moustique. ñooñu nga xamante ne ay catégorie ngeen ci làmb ku ci nekk dafa war a dajaloo ci lobby bi ngeen bëre daan kenn génn dem ah waaw ay xeeru ngor numéro 2 ah waaw booy yooyu doon nañ ci ñoo xamante ni ci làmb lañ bokk dañoo ñëw léegi yéen ñooñu faw ngeen bëri seen biir mën a jóg booy ñang numéro 2 mu baal ma tey ñu ngi dem ba naan diggante moom Balla Gaye 2 grand contre waaye làmb ku ko bañ rek cest à daa am camp boo faree. waaye Boy Niang def na ay preuve am parce que daan na ay magam daan na ay rakkam daan na ay moroomam ci làmb bu laajee ci kaw jaadu yow fi mu toll nii pour nga laaj euh, a Lamine am ko foo nga bëreeg ñooñu wane li li nga xamante ni moom nga jugee sa diggante ak Jackson. parce que boo xoolee man li ma la confirmer pour man confirmer naa nee la pour mu gën a neex waxuma la comme tey ñu def ko benn benn hmm. mais nee la bu la neexee ñu def ko kala ñu def ne ñun suñu biir lay doon comme tey jii eh, Bur Siteu mu def naa Bur Siteu nga wax Bur Siteu bu dóor dóoraat ak ak ak Boy Bawal ak Boy Bawal Xeeru Ada Fass pour man eh, waaw même pour man <laughs> waa Ada Fass xam rek. lim na ci sax koo xam ne jàpp boo ko xax si la bokk. waaw Alioune Seye junior ah, man ñun ñëpp ay pour la ñu. nañ ñu sa naataangoo ci làmb man la jàppal. waaw jàppal na kon ñooñu ma la wax nii pour man jàppal ñooñu. nañ ñëw ñu bëri ñu biir. ñu def ko benn pool bu munul nee nañ nañ laale benn par benn ba keroog nag moo lool comme même nee nga man mënu mais xëy na ñun ñooñ bu ñëwee ñu bëree ñu suñuy kese seerul feyeekowuñu dañoo bëgg làmb di ko dund rek te yàlla tax waaw mais nañ ñëw ñu bëri suñu biir ñun ay boy yu ndaw lañu. léegi may ma mu choisir la ñett mbër. su ko defee nga tànnal ma ci koo ci bëgg. Ada Boy Baol Alioune Seye Junior euh, ak nu ma tëddati Xeeru Ngor numéro 2 kan nga ci bëgg. Alioune Seye wala Tafa Mbër Alioune Seye Junior wala Tafa Mbër dafa mbër moom fi mu toll nii <laughs> ndam lu jógee ci Alioune Seye su ma su ma demee laa ko avance sànq gi lii sax damay ragal bu jàpp ma man ma ba ma nooy. du ko jël xalaatu ko kër àddunaam Aliou Alioune Seye junior du ko jël mais tamit lamu la mais na gars yi nañ ñëw ñu bëre rek li ma la wax na gars yi ñëw ñu bëre xam nga tey mbër mos topp di tudd di tuddaat bu yàgg daanaan diw daf may tëggu da ngay ne daje bu ëllëgee mu naan yaa ma topp di ma tëggu wala boog du ma jël sama tax maa ne pour ñu war a bëre ñun suñu biir parce que boo gisee tax ñun suñu kii metti tey booy boo tudd tey danaan diw moo may togg waaye man togguwu ko man instant togguwu si kenn dama ne ñooñu làmb moo ñu boole nañ ñëw ñu bëre. man doo ma dëkk ndax aw ma licence. mais am licence làmb may na la nga dëkk ko te yoon la. waaw mais nag booy léegi dañoo def loolu seen bopp mais boo boo ci seet si mu ne dañoo sama avance dugg na ci kër yu bari ñu joxe ko ñu bañ parce que ñi ngay laaj duñ say natangoo ci làmb mais làmb pour man ku laaj sa natangoo rek di ngeen mais am na ñi xam ne ay natangoo ngeen tey avance bu ñëwee du ma tudd nag xam nañu bu baax li may wax ñoom xam naa leen bu baax tey avance sang dem na demaat fa kenn nangu ko faa jël sang bu ko soxla mu ndax muy yéex a bëre noonu lay demee adversaire am mooy ko foofu mais boo non non ba am xooli keneen. waaw moo tax nag pour ñu bëri ñun ba pare pour ñu mën a am suñu morom du yomb mais mu ne dañu mën a si kaw wala boo xool ñi xam ne tamit gën nañoo bëree mooy loolu noonu waaw. làmb ji kan moo ci dàq bëri. laama yi koo si daax a bëre pour man su ma waxee man ko ma daax a bëre man ki nga xam ne man moom daax a bëreel Eumeu Sène laay wax waaw noon la demee waaw su ma gisee man ki daax a bëre si man parce que tamit tamit lamb ji bëri na ay mbër waaw noonu la demee lan gën a neex ci moom ci bëre ban façon bëre moo la gën a neex boo fa dëgg yàlla nag li ma neex si moom mooy gaynde la day ñëw teg sañ-sañ bi ñëw indil loo ko jàmbaar la day bëre ba ñaax te du tricher boo fa loolu daf maa neex si moom waaw loolu ma gën a neex si moom mooy day ñëw wane la carrément tey bisu am la du bisu ñaax même bu day ñaax tamit day ñëw wane la du ko wane si kanamam loolu daf maa neex si moom voilà der la noonu la demee. voilà te ñun nag noonu la ñuy jëfee ñun suñu biir tamit loolu tax mu neex ma voilà. sang ñu ngi lay jaajëfal. waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax kon di kontaan si yéen nag di bëggee gaa yëpp di bëggee tamit Pa Demba bu baax a baax moom mi waral lii waaw bëgg naa gaa yëpp kontaan naa na si bàyyi jële yow it di bëri di bëggee tamit sa kanam ak Cheikh Bass bu baax a baax waaw kontaan naa